am na ay nit ñoo xam ne leen tere génn réew ndax mu leen di enquête ñu gis ne aussi am na ñoo voyagé di génn pour dem seen euh, bitim réew dem ba aéroport ñu ne seen tur dañ ko fi bind dañ leen tere génn réew mi loolu mu di li nga xam ne di violation flagrante des droits de l'homme la parce que euh, sénégalais citoyen sénégalais dafa am droit di ci dem ak dikk dem fu ko neex dikk fu ko neex kenn rek moo ko ko mën a tënk

ñu woo la def këyit bu koy dëggal parce que euh, Sénégal du état du nëbb sax ay citoyen loolu amu fi mbirum nëbbante soo jàppee ne lii war nañu ko def nit dañ koy wër nga notifié ko parce que soo ko tënkee am na sañ dem fa mbaxane nekk benn pour tënkee ko kon li ñuy wax rek loolu euh, jaay doole la or état suy jaay doole banditisme d'État lañ koy woowee loolu mooy banditisme d'État c'est pas y a pas un autre mot ndax nit ku toog nga def ko loolu euh, doole rek la mën a tegu looloo tax ñu ko doon ñu koy naqarlu te wax ne nag ñi nga xam ne ne bi def nañ leen ko yoon am na lu mu leen lu mu leen may mën nañ dem ci cour de justice bu CEDEAO pour que loolu ñu leen tere génn dindi ko te it li nga xam ne ne bi teg nañ leen ko te mu am gaañ-gaañ bu ñu ciy am ñu dax état pour mu pour mu pour mu réparer ko parce que un état de droit amul droit fonctionner noonu état de droit nu muy doxalee mooy lépp transparence lay doon mooy lu leer dafay leer day tegu ci yoon day tegu ci xam waaye nag euh, doole ak maa ay loolu ab nguur ab dëkk mënul doxee noonu hmm. maître lii di fàttali li fi xewoon euh, sous le régime du président Macky Sall mooy bi ñu teree Ousmane Sonko mu génn këram pendant 55 jours est-ce que nekkuñu di dund même scénario bi. xam nga xam nga euh, man loolu sama yoon nekku ci li xewoon démb bërki démb ak gannaaw bërki démb sama yoon nekku ci man lima ma xam man avocat laa am naa sama ay client yu ñu teg loo xam teguñu ko ci yoon. réew du fayantu du fayantu. su dee loolu la ça veut dire que ëllëg su fi kaneen ñëwee dañu jàpp Ousmane Sonko dugal ko fa baal defaat li du demee noonu de damay wax ne nit ki lépp luñ la teg te luñ la teg du ci yoon am nga sañ-sañ jóg xeex ko soo ko soo ko xeexee war nga ko xeex soo ko xeexul war nga war nga koo xeex maintenant nag yi ñuy def yi ñuy loolu moom kenn ku ci nekk da ngay défendre sa bopp alors reddition des comptes bien sûr, jëm maître euh, naka koy euh, vu interdiction de sortie du territoire yi ngeen di que da nga comme euh, ni ñi règlement de compte la wala am nga après li président ministre du que dina jaar yoon nga li ngeen di am lu sama mm-hmm. parce que vous ñuy subaa du caagéen benn nit wala ñaari nit ñoo koy ŋàññ lu teguwul ci yoon ñu teg ko doomu aadama dañ koy ŋàññ mm-hmm. kooku muy kooku muy benn ñaar man awma problème ci réduction des comptes réew képp koo xam ne ne kii jot nga am réew di ko doxal alalu réew mi ñu dox réew mi am na sañ-sañ ne ñu na nga leeral ñu li la jox noo ko defee loolu amul problème mais lépp na tegu ci yoon loolu rek lay jëm di laaj alalu réew mi ku ko luubal loolu mi ku ko yore yorin boo xam jaaduwul na yoon daal sa kaw waaye yoon nag yoon nag dafa war dafa war a tib mënoo jël yoon boo xam teguwul ci dëgg laluwul ci dëgg ci doole lay dal gis nga doole doole mënul dëgg doole mënul dëgg ndax dëgg mooy mucc kon na lépp tàmbalee ci dëgg lalu ci dëgg dëgg nag su àndee ak doole alhamdulilahi rabbil alamin waaye teg lépp rek ci doole wala du sotti hmm. alors ce client bi mais euh, commissaire euh, Keita mi ngi ci loxo yoon ba léegi euh, lan la koy toppee dëgg-dëgg ak lan ngay séentu ci boobu dossier waaw xam nga affaire commissaire Keita bi encore une fois li may wax naa nit ki la nga ne dañuy jaafur commissaire Keita li ñëpp doon wax rek la wax daf ko wax ñépp gis ko ñëpp dégg ko dafa ne ñu ngi wax ne te biir palais am na jàppante bu fa am diggante Ousmane Sonko ak président Diomaye Faye du moo ko wax journaliste yu bëri wax nañ ko réseau yu bari wax nañ ko moom dafa ne dégg naa ne lii am na loolu de lañ ne mooy diffusion de fausse nouvelle kon tey jii réew mi kenn amatul sañ-sañ nit wax nga jot li mu wax loolu aussi dama naan toujours ci jaay doole weesu loolu ba pare gis nga commissaire Keita quand même kilifa la ci réew mi kilifa la woon euh, woo nañ ko semaine bale passé mu wuyu ñu laaj ko mu tontu loo ko demal nga ñibbi mu dem këram ñu toog ba àjjuma su ma loolu loolu moo waral dañ ci réew mi loolu mooy loolu mooy defante boo ko àjjuma mu ñëw nga téye ko téye ko ci weekend bi loolu day tax ëllëg sénégalais bu police woo ak sénégalais bu gendarmerie woo ne la kaay àjjuma nga dem nëbbatu ba altine nga dem ndax soo demee àjjuma dañ la fay téye àjjuma samedi dimanche loolu fayantoo la loolu ab ñaaw ñaawteef la kilifa koo xam dawul demul deful senn ñëw na nga woo ko laaj ko mu tontu. ولله الحمد سوكو صحلا التنك دي والالتنك تسكو دو دو دو بيوي دو بوك تلي خم دي نعوال لدي لدي أكنو من تدول مالفة أكنو من تدفع مالفة يلا لجيون من دي سوال بابل ورلاتي يستلو لاتي مقابل وسيلة تدسنا بو آه، نتنا عندي فين في يومي كنا ومكون يوكو بوكو آه، لو لو لو حدث لو خمان نكو دندي lu xel lu xel lu xel euh, xalaat xel mën na xalaat la euh, lu waay def euh, nit mën na def leneen lu bokkul lok loolu te nak nañu japp dara ala kulli al nit lu mu mënta ci aduna day jeex nguru yàlla rek mo dul jeex hmm. alors maître un petit résumé de votre communiqué de ce jour vous avocat républicain dénonçant notamment les interdictions de sortie euh, du territoire euh, qui euh, donc ont été notifiées à certaines anciennes autorités. Non, aucune interdiction de sortie n'a été notifiée à personne. si nous comprenons tous, parce que cela résulte des déclarations de M. le Premier ministre Ousmane Sonko, une liste a été faite et déposée au niveau de la police des frontières et de l'air pour empêcher un certain nombre de personnes de quitter le pays. Pareil procédé et non seulement doit être dénoncé, mais euh, résulte d'une mauvaise pratique, euh, d'une illégalité manifeste. Parce qu'un État ne se gère pas dans la ne se gère pas et ne s'administre pas dans la clandestinité. Si les autorités ont le droit, dans certaines circonstances, d'interdire à un certain nombre de personnes de sortir du pays il s'agit bien des autorités de police dans le cadre d'enquête ou des autorités judiciaires. Mais un internement administratif, un isolement administratif, une interdiction administrative de sortie du territoire constitue manifestement et incontestablement des actes d'une grande nullité et des actes aussi nuls, aussi illégaux peuvent résulter d'une forme de banditisme d'État et d'une certaine forme d'indignité de sorte que nous nous dénonçons ces, pratiques euh, qui violent euh, les droits des gens, les droits de l'homme, la liberté d'aller et de venir. On ne peut pas entraver les gens d'une façon euh, aussi, malhonnête et aussi déloyale. Hmm. Alors, euh, vous êtes euh, aussi euh, l'avocat de l'ancien commissaire de police, Cheikhouna Keta, qui a été arrêté depuis vendredi. Qu'est-ce qu'on lui reproche concrètement et selon vous, jusqu'où peut aller ce dossier Oui, bon, ils, peuvent aller où ils veulent. ce dossier est, un dossier qui est fait objectivement pour empêcher les Sénégalais de parler. Vous vous souvenez de, de l'affaire Badjahate, qui n'a dit que des vérités. On l'a empêché de parler, on mis euh, au frais. Vous vous souvenez dans le Camaret qui n'a dit rien d'autre que euh, dire la vérité en disant que euh, ce que le président de la République avait dit ne correspond pas à la matérialité des faits lorsqu'il disait qu'il a trouvé les caisses vides. pour cette seule raison, on l'a mis sous mandat de dépôt. C'est de la même façon que le commissaire Keita, à qui on veut, disons, empêcher de parler, on lui reproche euh, une diffusion de fausses nouvelles par le seul fait qu'il a rapporté des propos tenus par d'autres, tenus dans la presse, tenus dans les réseaux, euh, qui euh, auraient parlé euh, d'un incident entre le président de la République et son premier ministre. revenir sur cet incident dont tout le monde était au courant ne saurait constituer une diffusion de fausses nouvelles. Bon, je ne sais pas, je suis malheureusement souffrant euh, de sorte que j'ai fait juste un petit euh, passage ce matin au tribunal. Je ne sais pas si on l'a mis sur mandat de dépôt ou pas, mais euh, manifestement, ces poursuites visent à l'empêcher de parler et aussi constituent une espèce de d'épée de Damoclès qui serait suspendu sur la tête de tous et qui serait amené à dire euh, ou à tenir des propos qui ne plairaient pas à, au tenant de ce nouveau pouvoir hmm. qui use euh, de violence euh, euh, et autres pour empêcher les Sénégalais de s'exprimer. Or, user de violence pour empêcher les gens de s'exprimer, c'est fondamentalement faire preuve de, faiblesse, faire preuve d'une incapacité à gérer les problèmes autrement que par la violence. Et la réduction des comptes sera la dernière question. Pensez-vous qu'elle se déroulera dans les règles de l'art pour moi, je, ne peux rien dire. Je, suis comme euh, Saint Thomas, je ne crois qu'à ce que je vois. Euh, la réduction de compte, c'est tout à fait normal que tous ceux qui ont eu à gérer euh, des affaires publiques, les sous deniers publics, tous ceux qui ont à les gérer rendent compte de leur, de leur gestion, c'est tout à fait normal. Mais aussi que cela se fasse dans les règles que ceux qui sont soupçonnés de d'avoir mal gérer, ou ceux à qui on demande de faire la réduction des comptes soient mis dans les conditions de pouvoir le faire, dans les conditions de transparence, dans les conditions aussi de tranquillité et de sécurité, leur permettant de, de s'exprimer librement et d'apporter toutes les justifications et les explications qu'il faut. C'est comme ça que les choses se font et non pas cette euh, gestion brutale, euh, cette gestion sauvage euh, des affaires publiques. Ça ne peut pas marcher comme ça. Merci, maître un après.